asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb la ñuy xëy tey doore ko. la ñuy xëy tey doorete ko. mu mel ni ki yëglikaay bi di sunu lamb moom fa mu xëy génnati fenn la wala ki mu ñu xëy wan kenn la muy tafaatin bu bawal borom taq ci rib daal la yëglikaay bi ñëw tey di wax plan yi nga xam ne moom la tafaatin war a teg ngir mën a daan ki nga xam ne moo di Boy Niang maanaam daal wan yoon la war a jaar sunu làmb ne ne la ci jëkk daal bokk na ci wàllu mbooloo maanaam mobilisation bu baax a baax ak tamit dajaloo bu baax maanaam rassemblement ak boole doole ya ne na yii moom mënta ñàkk ngir nag man a daan ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang bu dégool yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb ñii moom maanaam combat xaw a të muy ñetti yoo xam ne ñu nga géej a wallu kan moo leen di wallu ngir jox leen combat muy lees numéro 2 Elton ba ci Lac de Guiers numéro 2 yëglikaay bi ne na bu dee lees numéro 2 la am ñaarata ngi yoo xam ne gisul combat la mujj wàcc ci géew bi bëre Elton tamit le 31 mars la mujj a bëre yëglekaay bi di sunu làmb tamit mu ngi ñuy wax ki nga xam ne nii moom moo di Lac de Guiers numéro 2 le 13 juillet 2009 ci la mujj a bëre yëglekaay baa ngi xëy ñëw di ñu wax ki nga xam ne nii moo di sunu làmb ki nga xam ne nii moo di Obali moom la mu xëy di wax maanaam ñi mu xëy sampal ndënd kenn la wala boog ñaar ba ñett jàppal ka jiitu mooy Baara njaay bu Faas Obali parcelle nee na pare na ngir bëreeg Baara Ndiaye ñu ko ca ngay yem ci yem limousine tamit boole na ko ca Cobra numéro 2 tamit bokk na ci ñi nga xam ne nii daal jàpp na ne ñii ay adversaire lañu te war na mën a bëre ak ñoom ubbali moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglekaay bi ki nga xam ne nii moom moo di booy kayre lu metti wala lu tiis naroon na koo dal maanaam daal tuuti kon rek ñu ne ndem ci yàlla sa loolu la ñu yëglekaay bi xëy wax ndax nee na dafa xaw a forole lu jëm ci wàllum loola lañ ko def fa nga xam ne moo di ca kër njaayloo waaye nag la ca neex daal wala boog la ca des mooy bakkan mujj ca dem waaye nag xar ya moom yóbbu nañ leen di ay laadum yëglikaay baa xëy ñëw du dina ko wax ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na ñëw ci ñoom ci seenu bilaa muy waaye ko di seex mbàbb mu mel ni ki ñooñu day seeni mbir moom soo bëggee dégg dëgg mu ngay dox bu baax a baax a baax yëglikaay baa xëy wax nu ko jàppal treize victoire la ñu def école di seex def loolu si def la ñu am benn combat boo xam ne moom la ñu am comme match nul waaye daal yëglikaay bi nag seen mbir de dox moom mu ngi koy def maanaam fëgg nañ bu baax a baax waaye nag am na ca ñoo xam ne moom moom combat tëne ko mujjul bëre dafa def ana balance bébé jul moom dañoo amoon ci moom yaakaar waaye na muy daanoo di wàcc moo a doy xam ne moom mu ngay wane boppam maanaam fu mu jaar def fa ab doom muy moor kànkang yëglikaay bi ñëw na ci moom moom itam ak la nga xam ne nii mu ngi koy wane fi mu nekk nii ci làmb ji moom moor kànkang am na fa ñeneen ñoo xam ne tamit ñu ngay wane seen bopp bu baax a baax a baax ci école de lutte Cheikh Mbaba booba yëglikaay bi ñëw na ci ñoom muy ay xale yoo xam ne daal jàppal ma des leen a yaakaar muy fils de bada trompeur ñagas numéro 2 ak internet wala boog ñagas signor ak internet ñoom it fëgg nañ bu baax a baax yëglikaay baa xëy ci ñoom joomaay fils de zallo ak ki nga xam ne moo di njaaxum déemu ak moodu ante numéro de ñii moom fañ leen doon xaar dikkuñu fa yëglikaay baa xëy ñëw wax nu ko moo tax nag seenum entraîneur moom di ba sung ma leen di entraîner moom kontaan na bay wax ci résultat bu nga xam ne école am ba def na ko école de li Cheikh Mbaba bara daal la mu gis na ne seen mbir yëpp li ñu bëgg mooy suñu làmb door bi ñu gàddu ko yóbbu ko loolu la yëglikaay bi wala boog loolu la ba de suñ xëy wax tey ci yëglikaay ba nga xam ne moo di suñu làmb keneen koo xam ne nii moom ay fi mu nekk nii xaw naa taq suuf maanaam daal ci li mu war a dugg fi mu nekk nii mooy xool xool nu muy def ba taxawaat muy Pape Ndoye bu Fass yëglikaay bi xëy na tey tamit ñëwal ñu ci ay mbiram ak taxawaayam ci làmb ji fi mu nekk nii ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay yi dañuy dem fa nga xam ne nii nag moo di ca record record moom ke mu xëy dalal mooy mu am lees bu parcelle bi maam lees daal la mu xamle ne na diggante rëg-rëg ak guy yi ne na kenn di ci sonn maam lees a ko wax de bu parcelle mbooloo ne fukki combat bu ñu ko bëree rëg-rëg day daan guy gi loolu mooy waxi maam lees wala boog bu cay am xanaa benn ket la ca rëg-rëg ma la ca guy gi mën a am waaye ne na bu ñu bëree lu lu maanaam combat yi ñu mën a bëree daal maam lees ne na guy gi rëg-rëg da koy daan loolu mooy ay waxam leneen loo xam ne nii mu ngi ci yëglikaay bi di record muy Max Mbargane ma nga xam ne ak ci mbirum écurie raw ak ya jiitoog lañ ceen ciy règlement yu bees la mu xam ne nee na règlement lu ci mënta xew daal lamsaar moom ñooy premier loolu la wax fa nga xam ne moo di ca record ñeneen ñoo xam ne nii moom ñu nga woon ca réew yi Maroc ya muy caaka fayat ka nga xam ne nii wala boog ña mu àndaloon loo ci mën a dégg moom dugg si waat nañu ci réew mi ba tey bu ñu continuer ci yëgle bi nga xam ne moo di record ki nga xam ne moo di Doudou Sané moom yëgle kaay bi ñëw na ci moom ak lambi simple ja lam ci des def ren juróom benn drapeau daal mu gàddu am lu toll ci 4 millions 165 mille francs gàddu na ko ak wennaw nag woo xam ne gàddu na ko moom Doudou Sané moo tax daa mel ni loola mu def daal bég na ca gis ca boppam dañ fay dem nag dem ca magi record muy l'observateur lobs moom ke mu xëy dalal mooy malik Ngom arbitre bi Pierre Malick daal la mu xëy xam ne daal ne na ñoom seen wàll bopp daal fi mu nekk ni moom seen plan de riposte wala plan ba ñuy teg ba ba CNG di fi jóge moom ne na fi mu nekk nii ñu nga ca te duñ ca jóg maanaam daal seenub xeex moom soo bëggee dégg-dëgg duñ ca dellu ginnaaw tey suba waxi noppi xanaa kay ñi fi nekk jóge fi rek ne na loolooy tax ñoom ñu taxaw Malick Ngom moo wax lool bokk ca arbitre ya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 Babacar amoo xaalis de. maa ngi non am naa xaalis kumba maa ngi nga may ma. <laughs> ah amul problème boo ma ñaanal may la ndax <laughs> yor naa 5000 te mën naa ko bokk ak yow amul muskil la waaw. Babacar sama doom bi nag ak ñëpp xale yi nga xam ne def entrée en sixième moom suñu doom la moom it moom suñu jarbaat la sax laay wax ndax yaayam suñu nit la papa mi tam wax dëgg yàlla suma gayen la eh. kon yaakaar ko ñaanal suñu bopp la ñu ñaanal kon yàlla na ko yàlla may loolu muy jongante moo képp ku mu ci mën a doon ñuy def <laughs> entrée en sixième ak ñooy def BFM ak ñaay def baccalauréat ak ñoom ñëpp ku ci ne yàlla na nga ko réussir ak sax yeneen yeneen classe yi bëgg a jàll beneen classe quoi voilà euh, parce que amul liggéey tam am liggéey yàlla na ñëpp am liggéey yàlla poche yi xaalis di si a ñàkk wér gu yaram lu wér tey fekke na ñuy wér tey fekke bu ko defee ñu mën a wuti xaalis yenente jàmm waaw non loolu bu amul loolu moom maanaam nit ki boo ko yénewul jàmm da ngay sonal sa bopp parce que boo koy niwut jàmm yàlla dina ko ko defal nga ànd ci yàlla ànd ci nga ñàkk ci ànd yàlla def ko kon li lay noppal mooy rek ma yéene la ko nga yéene ma ko ñu yéenante ko su ko defee xol yi mën a dugg mais la tànk loolu amul rek moom ah coono ah ci ñun jullit li nu gëm voilà loolu am na solo Babacar laam nag ñoom nee nañu tafaatin bi nga xam ne moom war a jonante jongante bu rëy ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang daal mi ngi wayal nag pour daan ki nga xam ne mooy Boy Niang mooy wàllu mobilisation bi rassemblement bi comme noonu la wax léegi rek boolee xol yi bu mun a dem na si jogante boobu mën a daan maam da baax de yàlla na yàlla yokku leen taf ñu si barkeem daan na wax ne nañu tàppe xol yi mm. daan na wax ne boo duggee ci gaal bul ñaan sa ëmb mucc <laughs> ñaanal gaal gi mucc ndax su gaal gi muccee sa ëmb ca lay muccaale mm. defe naa kon loolu tàppe xol yi nag bu ñu ko waxee mooy ànd te yàlla tax booloo defe naa loolu moom mooy li ko mën a may li muy wëri ci combat bi mm. parce que yaakaar naa ne ñi mu war a àndal su àndee ak ñoom ñu yénente lépp li mu war a def mu def ko su keroogee nag bu ca demee ak noona parce que boo ànd ak ñi nga war a àndal nday ko ma su wutee ñàkk amatoo gàcce mm. boo amee mu gën a neex mais boo ñàkkee itam dootul metti mais li bon daal mooy xajjeku yow kese di booloo ànd bokk nday bokk bàyyi dem jéem a bëri ji ak Boy Niang la ca des nag sunu borom a ko yor muy muy victoire. Mm. waaw journal bi nag mi ngi wax nag numéro yi nga xam ni moom laay lim muy la Lac de Guiers 2 Elton Les 2 ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi wut ñu ngi yuuxu daal wallu daal. ndax promoteur na leen fàtte. SOS <laughs> la SOS <laughs> pour les VIP. pour les VIP de Guédiawaye ah. Mm-hmm. maanaam ñetti mbër muy lees Elton ak. Lac de waaw bu dee lees la moom xaw na mujj gëj a bëri ndax 2017 la gëj a bëri euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Elton tamit 2018 ku ne yaa ngi fàttaliku combat ak Reug Reug mm. Lac de Guiers de moom bëri na saison bi la génn deux 2000 waaw kon li ci des daal mooy promoteurs yi la ñuy wax xam nañ leen gestu parce que tamit ci lamb ji lañ bokk te ay mbër yu mag lañ te am na lu ñu représenté ci lamb mais na lu ñu représenté tamit pour seen gox ba nga ne moom mooy géejawaay ndax wane nañ seen bopp tey ci lamb ba ñu xam ne dama naan bu ñu yaafuusoon fii ñu yegg si tey duñ fi yegg si ci lamb bien sûr waaw Babacar nag ba tey sunu lamb mi ngi continuer def euh, bilan yi te nag mi ngi dalal école de lutte Cheikh Mbaba ñoom daal am nañu 13 victoires 6 défaites ak benn nul Babacar waaw mu mel ni day boobu bilan Ndeye kumba Fall bëriwul loo koy gis ren de bëriwul de. Mm. puisque macha allah combat yi bëri na. ak fi saison bi taxawee. boo xoolee treize victoires six défaites boo xoolal ak benn nil vingt la. ak fi bi taxawee ça veut dire que kon management école de Cheikh Mbaba baax na mais ca côté liggéey bi tamit techniquement it foofu itam macha allah mu ngi dox ndax treize victoire yooyu kon loolu du mën a def loolu félicité leen ci rawatina seen entraîneur ñu xam ko bu baax muy suñu papa Badasung di ko félicité ci liggéey boobu parce loolu li ma lay wax rek ànd liggéey nekk benn nekk ay xale moo koy waral parce que école de Cheikh dafa am ay talent a baax benn euh, kii assance bu mu ne an doon na yéeg mais gis nañ ko mu commencé wàcc mais lépp liggéey lay doonaat mais terewul ci biir équipe bi da nga gis yeneen xale yoo xam ne vraiment ñu ngi assuré liggéey bi bu baax a baax kon ñu ngi leen di félicité bu baax a baax ci seen suñu pap boobu euh, daal seen rêve am mooy gagné suñu làmb d'or ah waaw loolu wax na dëgg koy football ballon d'or nga soxla ballon d'or bi gars yi di gagné moom la ñëpp soxla parce loolu mooy mooy définir sa liggéey parce ku liggéey ba pare ba am résultat positif nag war ngaa ñëw nag ñu récompenser la kon suñu lamb d'or bi moom defe naa xelam war na cee mën mm-hmm. na caa xelam waaw bien sûr dañu ñëw nag euh, si record ak observateur ñoom ñëpp nee nañu daal Boy daal il a la mort parce que dem si guddi ay samba dugg na si këram tiré fa ay bal yóbbu nag ay laadum yu yu cher la Babacar. waaw muy lu méttee méttee méttee ñu koy masawu parce que yaakaar naa Boy Kaïré mérité amul sa sénégalais bu mérité loolu. Mm. loolu nag defe naa ne liñ ciy wax mooy état bi nga xam ne moom moo assuré suñu sécurité ñu dénk suñu réew ñoom ñoo war a gën a assuré sécurité doomu aadama yi parce que nag nit ki ndey Kumba Fall sàccul fenul day liggéey ci këram yar ay xaram. di ci liggéey di ci tedd sam waay benn waay jóge fële yor ay bali fetalam ñëw tiim la jël ko defee des fois dara ci mujj man dama naan il bi jël ay vol de bétail bi defe naa noonu lañ koy wax ñi di ah. sàcc jur yi jàmm waxoon nañ koy criminaliser maanaam ko ko sàcc ñu tëj ñu tëj parce loolu man ca àll ba laa dëkk ñun boo demee suñu village yi ñaar ñu bëri bëggatuñu yor ay xar da koy yar ba mu rafet nga tëdd guddi après ay nit ñëw yewee ko te des fois boo ci incité sax ñu dóor la bal nga xar jaru ko dara jaru ko ndax bakkan dafa foor kon encore une fois état la ñuy interpellé ñun rawatina le de l' ak le ministre des forces armées mm. gën a dimbali ci côté boobu ak ministre de la justice parce que itam metti na trop trop ci yeew sa jur ne sa kër dina law ñu fekk la fa ne force nañ ko jël nga résister ñu faat la te du mujj fenn kon ñu ngi masaw boykare bu baax a baax ñeneen ñi nga xam tamit nooy résister ba léegi si xeex bi si diggante ñoom ak ki nga xam ne mooy Alioune Sarr moom mooy arbitre yi ndax tey observateur dalal na dañ am nañu benn plan de riposte boo xam ne daañu def tout xeex pour Alioune Sarr si bopp CNG bi Babacar waaw muy Malick moom moo koy wax loolu ci observateur ah loolu nag moom a xam daal mooy comme la ma waxoon rek ñoom ba tey ñu la ñu jàpp di ko xeex na ne nag ki leen ko teg du kenn ku dul Alioune Sarr ak équipe am moo tax am nañ droit kani ñoom dañuy jàmmaarloo ak ñoom ba ba ay droit loolu lii dañ la koo jaar yoon am nga droit xeex ko ci xeexin bu jaar yoon moom day kumba fal su jigéen nag observateur nañ dem fi nga xam ne moom mooy record record nag dafa dal ki nga xam ne mooy Mamles coach ki nga xam ne mooy parcelle moo doon moom daal li ma gis nee na si fukki combat Reug Reug dina daan ki nga xam ne mooy guy gi neuf fois loolu nag Mamles a wax maam a ko wax waaw na leer <laughs> suñuy wax ñun <laughs> waaw li am solo daal mooy xaw ma dina ko daan ci fukki combat xaw ma du ko daan ci fukki combat mais la ma si waxoon laa si waxaat rek xam nga ñoom ay technicien dañuy seetlu bu a baax Reug Reug mbër la la ma doon wax ci moom du dañ loolu laay wax continuer wax ci moom parce que mbër waada la parce que mën na bëre am na doole macha allah te itam am na ay taxaw te lool bu ko mbër amee day naqaree bëre ba pare di xale te itam fonk na li muy def lool moo ko ni tey ci niveau bii mu ne waaye dafa am tamit adversaire a taxaw ci kanamam bant gi tax taxawul ci kanamam aw fëy taxaw aw xob taxaw. ak Babacar taxaw ci Babacar taxaw fa ndey ko ma fal taxaw mbër fa taxaw mu nuy wax guy gi. mbër moo xam ne nii su entraîné li mu war a ba ne day naqaree daam muy guy gi. te itam yàgg naa kale ñu doon dem. ku weddi ku ne gis na digganteem ak Ama Balde. Mhm. ak yeneen i mbër yoo xam ne nii. mbër ki dem moog Siteu ay ñoom ama mhm. guy gi ay mbër waa dala ah. daan dama bëgg tamit ñu séddu ko cër ci combat jàngat bi am na solo trop. Mhm. joxe loolu tamit dafa am solo quoi Ndeye Coumba solo trop mm-hmm. Babacar suñ jógee nag foofu nag nañuy dem fi nga xam ne euh, euh, record ba tey dalal nañu ki nga xam ni mooy Max Margam Max Margam nee na nouveau règlement wala ñàkk nouveau règlement bi yëpp mooy nee na Lansar daal mooy pay si ren waaw si waaw loolu de li ñu ci mën a wax daal mooy loo ci mën a dégg daal bu bu pënd bi moom dinañ xam ban écurie jiite bu jiite ana pënd bi pënd bu pënd xam nga pënd bi bi wuree waaw kan la bi di wuri waaw bés ba mbir yi jeex rek ba ñoom ñiy topp affaire yi ñu koy topp ba affaire jeex xëy na ñoom dinañu wax fu mbir yi di féete ñun foofu moom dañ fa dul mën a sotti l'essentiel que bu jeexee rek jeex na ah bu jeexee jeex na. kon booy ña booy ña ko waaw kay. Ah, kon daal génn si lutte frappe bi dem si simple. waaw moo ëppul coow daal. ki nga xam ne mooy Doudou Sané daal moom lu ma gis eh, nee daal saison bi mu jugee daal saison bu bon a bon la parce que nee am na si 6 drapeaux la si am ak 4 millions 165 mille maanaam xanaa Doudou Sané xamul ne 4 man de man de man de bu ne <laughs> ah, ah, ak cant. Mm. bu demul bañ koy jaawale puukare cant ga des na la ko yàlla defalee da ngay sant sa borom ñaan ko mu dolli la dugg ci ab saison ba ñëw corona ñëw balaa corona ba ñëw nga gagné 4 millions yu tegal aku nag ak i drapeau nga ne bégoo ci ah duudu man d'accord maag yow ci loolu santal yàlla bu baax a baax yàgg mel ni yow mhm. ndax am na ñoo xam ne tey maanaam 1000 francs yu ñu lekk leen di mhm. nit ki nag da Ah, mbaykat bi Ablaye Mbaye noonu boo bëggee noppalu ci àdduna da xool ñi nga tane. ku ne rek am na koo tane. kon noonu la noonu lay demee loolu laa koy wax moom Doudou Sané. Mm-hmm. di ko nuyu di wax ne moom tamit di nuyu waa Diofior mbër mbër la ñëw ren ci arène bi gis nañ boole moom fa indi. Mm-hmm. li simple tamit mu si wane boppam mais waa Diofior maa ngi leen di nuyu rawatina seen maire di sama mbokk di Youssou Diom xam nga ko bu baax moom lañ daloon kërëm bañ demee ca Yékini ja ak ki nga xam ne mooy Pape Diouf yor maa ngi nuyu waa Diouf yor nu jeexalee ba tey nag lu simple toujours si record nee ñu nag ki nga xam ne mooy Thiaka Faye ak Anta Samp ñu nekkoon fee euh, si Maroc doon entraîné di préparer saison bi di ñëw ñoom daal nee bisi nañu fii Sénégal waaw mu mel ni kon daal ñu ngi leen di wax nañ dalal rek ñeneen ñëw nañ ci seenum réew Sénégal moom dañuy loo mën a dem ak foo mën a dem da ngay dem ba benn waa da nga koy nam. xam naa namoon nañu réew mi. Mm, ak ceebu jën loolu waaw ak waaw ak Penda Mbaye ba. waaw Babacar nag si lekk googu nag lañ leen di leen jox dig daje suba incha allah balaa boobu ma nuyu sama yaay Meso di nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Asta ne déjà vraiment chéri Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Asek chéri Khoudia Seck maa ngi koy nuyu Abdou Gueye depuis États-Unis Baye di eh, ne mooy Khadija Diallo eh, ah, sa ñaare yéene ki nga xam ne mooy jëkkëram ñaareel yow takkare te bàyyi jëkkëram ndax moom ñaar pikapeel non non man yéenewuma jëkkëram de xam ma wax man li yàlla moo ñu sant moom du jullit la <laughs> nee na nga takk sa takk te bàyyi jëkkëram man waxuma man damay takk tàggool ba tey waxuma ah, Khadija man waxuma damay takk <laughs> l'essentiel kat daal sa borom kër damaa xam ne bu dee jullit am na droit takk ba ñeen te murit teg si murit ah, lu kooka day fi kook faw mu takk du mën a ñàkk <laughs> as takkaatal loolooy yoon Khadija di la nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ñu ngi ñuy suivre rek à travers le mm. mais ko dem dafa am lu ma waxoon muy coup d'état ba xew ca Mali coup d'état boobu dama siy ñëwaat gis nga ko man damay wax suñu chef d'état yii ngir yàlla ko yonente bu ñu laajatee ay mandat bu ñu leen ko joxee bu dee ñaar la ah. ñu jox leen ko ci yoon bu jeexee nañu dem jërul ñu di fa toog ba ay xol ba ay coup d'état di am di jaxasoo boo li xew ci Mali président Mauritanie ba ko téye ah. général Aziz ngir lan ah. affaire yu mel noonu ah. kon yooyu nañ ci veillé bu baax a dañ leen dénk mais nag dañ lay dénk dara ay nit di la jay ngay def lu la neex yooyu mënta sotti kon di ñaan Sénégal yàlla def ko Mauritanie ak Mali def ko ci àddina bi yëpp di nuyu Asi Diagne Mauritanie du ma ko fàtte bu benn yoon di nuyu ñëpp ñu nga xam ne daal ñu ngi ñuy mais mention spéciale rek waa Petersen encore une fois sama marché boobu nga xam ne laa